mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg euh, télévision Futur Média xibaaru suba gi Fatima Ba ci àndal ñu nuyooti la. ma fayati leen Pape xibaar yi ñu doore kook euh, ca France jamono yi ñu ngi fay weccante ay balu fetel diggante ay policier la ak euh, ñoo xamante ne daal dañoo yor ngànnaay nekk foofule jàpp nañ sax ni kenn ci policier yi faatu na ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo doon weccante ak ñoom balu fetel daal dinañu daw dugg ci ab métro wutali bët Saalumu France léegi nag li jot kay. xool moo di ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa ñëwoon uh, tey doon weccante ak ñoom balu fetal am na ñu uh, dara loo xamante ne laale nañ ko ak ñi ñëwoon démb ca Charlie uh, Hebdo ci di kër yéenekaay boobulee ñu dugg si woon ba faat fa toll si fukk ak ñaari nit juróom nekk ay journaliste ci ñett ñoom ñett ñoo nag amaloon ñaawteef bi kenn si ñoom di ki ci gën a tuuti moom daal dina sax dem police xamle rek ne bokk ci ñi amal ñaawteef boobule yeneen ñaar ba léegi ñu ngi leen di wër waaye jàppaguñ leen am nañu nag seeni euh, photo kenn ki euh, Chérif Kouath Kouachi la tudd keneen ki euh, Saïd Kouachi mu mel na sax ñoom ñaar boo demee am na lu ñu bokk ndax seen sant yi euh, benn la président Macky Sall nag di njiitu réew bu Sénégal ñaawlu na bu baax a baax li nga xamante ne moom moo xew euh, ca France ñu wax ci mbirum Sidia Bayo di opposant gambien boobu ñu waroon expulsé ca France moom nag ba néegi ni mi ngi fii ci Sénégal ndax léegi Cour suprême la ñuy déglu ci dossier le xool ndax dañ koy expulsé moom Sidia Bayo ndax statut bi mu yor réfugié la nekk fii ci Sénégal doon fi dund li waral nag ñu bëgg ko expulsé moo di la xew ca Gambie di tentative coup d'état euh, boobule moom Sidiya Baye nag xamle na ni passeport am daal dafa réer bis biñ koy jëlee ca këram di ko yóbbu euh, commissariat euh, central lu ci mënti am cour suprême moom daal moo war joxe xalaatam ci mbir moomule ñu xool ndax dañ koy delloo ca France moom Sidiya Bayo ca Gambie am na doomi sénégalais doomi Sénégal yoo xamante loolee aju ci attentat bi nga xamante ne tentative de coup d'état bi nga xamante ne ñu ngi ko fa doon bëgg amal kenn ci ñoom nag di Doudou Touré moom nag ay euh, sénégalais yi ñaawlu nañ ko lool di sàkku nag ci kilifa yi ñu àddu ci ni mu gën a gaawee moom Doudou Touré chauffeur taxi la foofule ca Gambie ñu teg ko loxo ndax rek da doon jokkoo ak ay xaritam yu nekk ci États-Unis ñoo ñu ñu tuumaal leen ne dañoo laale ak li xew foofule ca Gambie dañ ci ànd ak reportage Maymouna Ndiaye Younous Diatta doomu réewu Sénégal ba ñu teg loxo ca Gambie te muy wuyoo ci turu Doudou Touré foo dem ci ndakaaru ñu ko fay waxtaanee ne di laaj ana lan moo xew dëgg-dëgg. Yaaya Jammeh moom mbiram moom kenn xamul si kenn xamul ni mu mel moom dafa mel ni moom man man li ma xalaat ci moom dictateur la daal. waaw affaire état moom dafa xaw a nekk affaire bi xam dafa xaw a doy am naa mais yëpp daal xool daal ak nu ñu may may daal li may condamné moom mooy coup d'état suñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot chauffeuru boobu lee dañ ko soupçonné maanaam ña ko teg loxo seen xel dafa tey ca lam doon waxtaanee ak xaritam ba nekkoon tugal ñu jàpp ne dafa laale ci coup d'état bañ doon waajal ca gàmmi dafa louche quoi donc gouvernement bi war na war mën lijjanti loolu noonu noonu noonu bu dul dara de dara parce que Gambien yi déjà mooy la si bu ñu nee bu ñu nee Gambie ne Sénégal c'est la même chose quoi appel téléphonique. am na lu fi gën a grave yooyu te gars yi lijjanti wuñu ko kon kooku buñ ko bu buñ ko soupçonné neen na dañ ko bàyyee ñu li après ñu mu dem lijjanti ay affaire ñu xool ñu ñu topp trace rek bu dee dafa il a fait quelque chose ñu doog ñu doog di ko lijjanti. chauffeuru taxi yi ñoom am lu leen metti torop li ñuy ñaan rek mooy doomu réewu Sénégal yi nekk Gambie ñëwaat seen dëkk. vraiment loolu moom métti na ñun taximaan yi Sénégal yëpp ñu ngi métti loolu te xam ne loolu du yoon daal parce que tamit Gambie moom lu leen neex la ñuy def. daal seen xalaat rek. taximan bi agressé moom ak ak ak ak kii couleur temps amul fenn liggéey rek lañ xam. gannaaw ñi xeex ak ak yelleefu doomu aadama tey ji doomu réewu Sénégal yi di ñaawlu bu baax la xew ca bi ñu ne nag jot na suñu njiit yi wax ak communauté internationale bi. Maimouna Ndiaye procès bu Karim Wade dinañ ko euh, wéyal ni ki tey tey ji nag ki nga xamante ne moom moo fi nekkoon jëwriñ bu ñu dénk wàllu finance di Abdoulaye Diop euh, ñu ngi koy xaar foofule waaye itam notaire bi di Tamaro Seydi ñoom nag ñu war leen déglu ci ay poñ yu bëri bokk na ci ci ñi ñu taxawalee societé yu bëri yi ñu njort ni Karim Wade moom moo ko moom bokk na ci société yooyu AHS euh, dinañ ci ànd ak suñuy nattangoo yu ñu fa teewal ci suba ñu wax yi nga xamante ne am na ci commandement territorial bi fii ci Sénégal am na nag ay gouverneur yoo xamante ne dañoo jógee ci bi euh, dëkk dem ci beneen fii ci Dakar ki fi nekkoon euh, daanaka euh, jóge na fii léegi nag ki ko fi wuutu di Mohamed Fall moom administrateur civil la nekkoon gouverneur bu Thiès moom ma wuutu Cheikh Tidiane ndoy mi nga xamante ne dañ ko tabb ambassadeur bu Sénégal ca Portugal mu na fa wuutu général Abdoulaye Fall mi nga xamante ne livre bi bi colonel Abdoulaye Ndaw bindoon loole moo waraloon mu euh, jóge fa keneen koo xamante ne tabb nañ ko di Amadou Sy moom nag léegi moom mooy gouverneur bu Thiès Ibrahima Sakho di gouverneur bu Ziguinchor ay Aïdara Niang di gouverneur bu euh, Saint-Louis ñu fàttali itam ne euh, région yi di Louga Kolda Sédhiou Tambacounda ak Kédougou ñoom it am nañu ay gouverneur yu bees ñu wax ci coppite yi ñu gis ci arrêt de bus Dakar dem dikk yi fii nii ci Ndakaaru ci yenn gox yi da gis ne arrêt de bus yi daal dañuy soppi ay couleur léegi dañu leen a peinture en marron et beige euh, arrêt bus yooyu la askan wi nag am ci gis-gis bu wutee bu dee am na ñoo xamante ne dañ koy rafetlu am ñoo xamante ne ñoom loolu euh, gënalu leen benn yoon ndax jàpp nañ ne loolu day firnde rek ne ñu ñuy jiitee dañoo bëgg dañoo bëgg imposer euh, seeni i politique loolee tax ñuy peinture arrêt de bus yooyu ci couleuru APR ñu teewlu ci suñu reportage Mbour gi de l'indépendance arrêt de bus Dakar dem dikk yi fa nekk soppi couleur marron beige lañu ko def mu mel na couleur u parti njiitu réew mi la. keroog ci doon naa gis gars di peinture quoi waa Dakar dem dikk yi man laaj la man ma yéen mu demee nii affaire moom mu ngi bëgg kii yëpp quoi da ngeen bëgg yi la quoi seen euh, fa nekk quoi. yoo xam ne dañuy encoaguler xam naa certainement di def affaire yi quoi. ñenn ci ñi fay taxaw di xaar bus yi rafetlu wuñ ko benn yoon ndax ñoom jàpp nañ ne loolee day mel ni ñi ŋànk nguur gi dañ leen a bëgg a imposer li ñu bëgg. naayesul quoi franchement naayesul di euh, waa euh, naayesul parce que euh, war nañ ko bàyyi lu mu nekk woon ba au moins ñoom ñu sax bu fekkee dañ koy change sax ñu bàyyi ba ñoom ñu indi ay bus ama ah ñu bu ñu koy changé ñu changé ko mais comme nii nii bàyyi bus yi yeneen ki bàyyi couleur yi kii bi loolu sax c'est pas. naagisul quoi. couleur bi fi nekkoon ñu ne couleur yi Ablaye Wade la couleur bi ñoo nekk est ce que keneen bu ñëwee si def couleur mais loolu est ce que gën na man si sama xalaat dama bëggoon rek si sama xalaat ñu def benn couleur boo xam ne pour ñëpp la nga xam ne ki ñëw ki ku ñëw nekk fi couleur boo la fi fekk ku dem bàyyi fi couleur mais su nekkee ku ñëw sa couleur. finalement dafay niru lu nekk ah day niru n'importe quoi. ndey moom militante bu APR la ba tax gisu ci dara lu ñaaw. kontaan rek suñu parti bi. xam ne bi ñu bàyyee ñu liggéey. Sénégal dina jëm kanam. ñu wàññi wax yu bari yi. il faut ñu wone suñu bopp. mais bu keneen ñëwee tam da <laughs> ah waaye ñun moom. couleur bi moo ñu neex daal. liggéey bii di soppi couleuru arrêt de bus Dakar Dem Dikk nag mi ngi soog a door ginnaaw Bourguiba ak place de l'indépendance dinañ ko wéyal ñi ko sumbu di waa Dakar Dem Dikk ñoom nag jëm nañu eh, jokkoo ak ñoom waaye mujjuta antu. ñu wax ci napp gi mu doon ab activité boo xamante ne bëri lool ay jafe-jafe jafe yooyu tax ba ñu ciy yëngatu ne mënuñu respecter repos biologique bi maanaam noppal euh, géej gi ñoom li leen gën a yitteel moo di dem wuti jën ñëw jaay ko ngir rek ñu mën a dundal euh, seen i njaboot ndax jàpp nañ ne jamono dafa metti ba tax na daal am na yoo xamante ne mënuñu ko respecter donte sax autorité yi loole la ñu bëgg dañ ciy teewlu reportage Pape Cheikh Ndiaye Diouf ci caméra bi Younous Diatta góor gi Youssoupha ak ñamuy àndal di waajal dem géej fii ci Yoff noppal géej gi teewu leen loolu li leen soxal mooy wut lu ñu def ci poos yi ak li njaboot gi dundee. bu ñu demul géej dañoo lekk bu ñu demul lekk suuf si dañoo max suuf man du ñu max suuf bu ñu demul géej duñu amul lu ñu lekk ñun amul lu ñu liggéey géej gi rek la nam bu jàmm rek day xew déedéet parce que soxla yi ñoo tax da dem géej sa soxla yi du faju kon boo toogee day gën a metti kii moom di xaar doomam bi nga xamante ni dafa xëyoon dem géej lu ci jën moom mii am na ñaari gaal mu ngi xamal jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel. jafe-jafe yi ñuy jànkonteel si liggéey bi bari na. moteur dafa seer banta yi ñuy liggéey gaal yi dafa seer trop sax essence bi gaa wàññi nañ ko litre bu nekk cent franc temps yi alhamdulilah xeebu na ko mais yàlla na yokk. ci atum 2010 la góor gi di bay tiir gëjëw dem géej mi ngi fàttaliku atum 1952. coof jëreñ kóoca ruur. boor yëpp daanoon ko jàpp ba jëkkoon amul woon kees dañ daan yëpp kal yi rek ba mu fees te am bi période bi ñu toll nii nag léegi baa demee ba amee ñetti nappee ñetti kees si daa lee mbaa ñeenta léegi nag ay machine la ñu am mais bi ñu amee machine yi léegi seer nañ machine yi seer na géej gi amatul lu jën kaaraange géej gi doon lu am solo loolu ngir génération yi nga xamante ni dañuy ñëw mën na am lu ñu dundee Pape Cheikh Ndiaye Diouf ñu koy jaajëfal ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak gaynde yi nga xamante ne yegg si nañu El daa nekk ca Maroc loole nag ngir rek seen wàccaay ngir mën a dem ca Guinée équatoriale fekkee Coupe d'Afrique bi fay am euh, Bouna Koundoul nag moom nee na wóolu nañ seen bopp lool ñoom am nañ yaakaar ni euh, euh, compétition bi daal dina jaar yoon dina rafet ci ñoom moom ñoom lu ñu bëgg nag moo di yegg si ca final jël sax nag final bi ngir dugg ci histoire Sénégal Ndoul ci micro Kambel Dia. rawatina tax ba ñu la équipe nationale bu football bu Sénégal gaynde rekk lay xaar. terrain football bi nekk file te muy wéy ci li nekk ci àddina bi yëpp. pare na fa ñuy dëkk tamit naka ci noonu footballukatu Sénégal yi nag lépp lu ñu bëgg ci seen wàccaay laata Coupe d'Afrique bi am na fi. Le site se prête très bien à des concentrations nous avons des bâtiments séparés donc nous pouvons loger à chaque fois. wax dëgg fii pour concentrer wu rek euh, amul lu ko gën. ndaxte am na ay tabax yu bare yi nga xam ni mën nañ fa dëkkal ay équipe te euh, seen yoon du nekk ci client yi maanaam daal kenn du gis sa morom ci hôtel bi léegi terrain football tamit macha allah wala entraînement lépp am na fii am na salle pour def tàggat yaram pour def musculation def vélo ñoom seen am na benn piscine bi nga xam ni sax ndox mu tàng moom moo ci nekk jàkkaarloog tamit géej gi gaynde Sénégal yi kon daana mën a def seen entrainement fay ci piscine bi nga xam ni ndox mu tàng 32 degré moo ci nekk teyit it jàkkaarloog géej gi. également ils peuvent faire le sport ils peuvent nager dans la piscine chauffée à 32 degrés. et être en face de en face de la mer. terrain football bu mucc ayib ay garab yu toll ci téeméer ak ñaar fukki hectares ñoo ko wër rawatina gazon naturel bi nekk ci fi ñuy jouer golf ci hôtel bi le te mu bokk ci yu gën rafet ci àddina bi hôtel Pullman sore na tuuti dëkk bi di Al Jadida foofu kon gaynde Sénégal yi jàmm rek lañ fa mën a am. pas de journaliste pas de de. Euh, du ñu gis journaliste bu leen neexee du ñu gis tamit ñeneen ñi ñëw fii pour war leen euh, déranger. seen xel yëpp lu ci nekk mooy wattaay bi concentration bi ak tamit jëm seen wàllu lekk. leur concentration sur leur préparation physique sur euh, euh, sur leur régime alimentaire. équipe nationale bu football bu de di Maroc nañ ko acc pour coupe d'Afrique bi lee Jalil Chebi am beneen équipe pour Guinée équatoriale muy Sénégal équipe Sénégal bi lee sax directeur général Pullman am na ci yaakaar bien sûr au moins petite semaine de relaxation ici seront les bienvenus on fêtera tous ensemble. avec la coupe bien sûr. élément bi lee nga xamante ne euh, dañuy wane rek fi nga xamante ne foofee la gaynde yi dal ngir amal seen wàccaay Coupe d'Afrique bi ngir mën a dem ca Guinée équatoriale mu nekk nag ab reportage Boubacar Kambel Dieng ci hôtel bi nga xamante ne foofee la gaynde yi wàcc ak fi ñuy tàggatoo laata ñuy wutali euh, Guinée équatoriale ci CAN 2015 bi nga xamante ne dina door le 17 janvier bi ñu dëgmal euh, Pape Cheikh fii la ñuy yem ci xibaaru suba ci laata fukki waxtu di jot. incha kon ñu ngi leen di xaar bu fukki waxtu jotee ci. bi euh, français lay doon jërëjëf euh, Fatima Ba ngërëm ñeel itam euh, rédaction bu télévision Futur Média ci liggéey bu rëy bi ñu merci beaucoup